yow yaay secrétaire général transporteur yi euh, dugal a génne conteneur yi ci port bi. waaw alors euh, ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. xew-xew bi tey mooy port bu Dakar mun nañ ni gàllankoor ngeen bu baax liggéey bi te bu ñu doon wax économie Sénégal euh, bu dee bébé buy nàmp dañ naan benn bi impôt mooy nàmp fii ci ndey gi douane di nàmp ci beneen bi mais port poumon la mooy tax ñuy noyyi te ku noyyiwul moom doo dund. tey da ngeen a xooj port conteneur yi ci li ma xayma euh, balaa ñuy toog ne nga huit cent ba mille conteneur daan na génn ah, tey bi ngeen évaluer seen grève bi waa bés bu nekk ñaata conteneur moo génn port trente lañ ba vingt heures trente conteneur kon gàllankoor dëgg am na ci activité économique bu am solo lu ko waral ah, lu ko waral devant l'impossible mm-hmm. nit bu jëlee alalam mm-hmm. créer société di fay ay droit embauché ay nit bu demee ba mënatul dem ba wóor ko ne mënatul sañ na toog dafa am ñaari mbir yoo xam ni dafa ñëw bëgg a dal suñu kaw bu njëkk bi mooy li ñu tuddee règlement 14 de l'UEMOA mooy ce qu'on appelle chargement à l'essieu mm-hmm. mooy dañ ne lépp loo xam ne dañ koy yeb ci oto yi dañ ko war a peese te peese bi waxuñu surcharge maanaam ëpp poids wala dara mais surcharge à l'essieu mooy lan boo jëlee buuba tey mu ñëw danga nga naan buuba jëlal sa tànku ndeyjoor nga teg ci bascule bi mu teg nga ne ko 5 kilos la nga ne jëlal sa tànku càmmoñ teg ci beneen bi mu teg nga ne ko non 4 kilos la donc dangay ngay fay 1 kilo parce que tànku ndeyjoor dafa ëpp 1 kilo tànku càmmoñ bi te li ci doy waar ci règlement 14 mooy ñun chargement conteneur bi nga xam ne moom lañ am agrément di ko def hmm. fekkewuñ fa ñuy chargé conteneur ba xamuñu nuñ ko chargé te dañ ko plombé dès l' instant ñu ko douane kese moo am sañ-sañ jox autorisation ubbi ko ñun sañ-sañ bi mu am mooy ñëw biir terminal bi soit muy diipoo dool Dakar terminal ñu tegal ñu ko suñu oto ñu génn dem ba ca douane douane def li mu war a def yépp ñëw ba ci client bi douane soit mu taxaw wala mu bind autorisé ne sañ nañu ubbi conteneur bi client bi ubbi conteneur am dépoté ko ñun ñu delloo kii bi état du Sénégal dafa am règlement 14 bu ñu woote woon ak UMOA 2005 la ba léegi mm-hmm. mais chaque fois bu ñu jéemee rek di indi ay gàllankoor ñuy dellu ginnaaw fan yële mu imposé Deepworld ne ko par force da ngay def pont bascule ci biir Deep World def benn pont bascule ci biir Deep comme ni nga ko waxee sànq huit cent conteneurs minimum à mille conteneurs par jour war a jaar ci benn pont bascule te képp ku xam conteneur xam nga ne préget foo ko jotee xam nga poids conteneur bi parce que machine yi nekk biir port mm-hmm. conteneur bu ñu yëkkati ci bato dañ laa naan poids bi naa la mm-hmm. kon lu ci jaraat peese mm-hmm. léegi oto yi dañuy rang chauffeur day dugg avant ñu ngi doon def douze heures de temps pour récupérer un conteneur actuellement ñu ngi ci vingt quatre heures ba trente heures te chauffeur bi amul droit wàcc oto bi amul saw amul dem toilette amul dara amul lekk amul naan dipôte comme c'est Afghanistan quoi amoo droit wàcc c'est interdit pour la sécurité da nga juum wala non <laughs> juumu ma du caaxaan c'est ça la vérité oto bi déggoo li ma la wax chauffeur bu la neex invité ku mu ñëw toog tu sais que ñun actuellement on est obligé pour un conteneur d'utiliser deux chauffeurs ñu relevante pour mën ko def trop c'est trop deuxième point bi le DG du port euh, Ababacar Sadikh Bèye dafa ñëw mu ne léegi à partir du lundi pour duggu port yaa ngi fay pour un transporteur agré six mille six cent francs pour un transporteur non agré c'est huit mille neuf cent dix francs yaa ngi doon fay macaron annuel quarante huit mille neuf cent annuel mhm. macaron lañ ngay jënd quarante mille neuf cent léegi ñun la chaque dugg hmm. c'est six mille six cent cest que pour le conteneur ça te mille deux cent pour un camion qui fait une rotation d'un conteneur par jour l'année te revient à quatre millions huit cent francs yow nga yaakaar ne man transporteur. donc initialement quarante-huit mille. quarante-huit mille par année le macaron. léegi quatre te revient à quatre millions huit cent. cinq millions rek. presque cinq million mm-hmm. de cinquante mille moins mille à quatre millions huit cent c'est inacceptable. et vous pensez que en tant que transporteur. su ma demoon ba sës di ko def dama koy répercuter sur le prix. Mhm. commerçant bi répercuter ko sur le prix man sama soxna sa soxna soxna buuba soxna keneen ñooy ñëw jën di ko ca boutique ba. Mhm. parce que c'est le consommateur final moo koy fay. Mhm. donc c'est pas un combat que nous faisons uniquement pour nous-mêmes. nous le faisons pour tous les Sénégalais. c'est pour ces deux points la ñu dem ba xam ni mënatuñ mais 30 ci port. doomu aadama toog ci oto mais fan la jëm. en le DG du port dafa lancé ay projet pour def ay tali ci biir port parce que tali port dafa yàq woon complètement il a lancé des projet te ñun ñu ngi koy saluer vraiment projet yooyu ñu ne bu fekkee danga nga lancé ay projet xaajugu la pare mhm. nga ne balaa biir di dugg day fay mhm. xanaa da nga am foo jaar mhm. beneen bi on a un parking AGS boo xam ne saa permet au moins camions yi am benn parking tampon pour ñëw topp avant ñuy dugg port qu'est-ce qui arrive da ngay ñëw dugg biir AGS tu fais vingt quatre heures là-bas toog di xaar nga génn dem ba Arsenal wala parfois gis nga buntu direction général mhm. fa ngay roñ pour ñëw dugg si mool 4 pour dugg mool euh, 8. ñuy gis ñuy. yooyu ngay gis ñuy taxaw loolu la. taxaw pour roñ pour dugg si waat port. parking bu xasee am. nous pensons que ñun boo toogee ci parking bi boo génnee rek da nga war dem directement ji port. lan ngay soxla génn parking dem ramaat ci tali bi. tu sais que beaucoup de gens yuy liggéey biir Dakar Dakar dañuy tardé. pourquoi parce que amoo foo jaar. Mm. parce que camions yi dañuy occuper tali bi mujj déborder ci bi noonu entrave à la circulation de l'intérieur ñëw dëkk Maris pratiquement jël policiers yi teg ci rond-point bu ñu xëyee suba ñoom tam ak jàpp camion bi tardel nit ñi parce que le ministre va passer là-bas <laughs> c'est des tracasseries mm-hmm. kon ñun li ñu naqari d'abord surtout tax ñu taxaw parce que ñun bu ñu de arrêt de travail lañ def. Hmm. on est des employeurs ay professionnels lañ yor suñuy oto jël ay nit di leen liggéeyloo bu ñu demee ba nga xam ni ñun suñu liggéey c'est menacé am nañ sañ-sañ na nañ taxaw. c'est pour cette raison-là qu'on a demandé depuis aujourd'hui huit heures un arrêt de travail de tous les transporteurs agréés pour le transport de conteneurs et quand on a fait une évaluation. on a constaté vingt quinze pour cent pratiquement des transporteurs ont respecté le mot d'ordre. ils n'ont pas respecté le mot d'ordre pour bëgg lu neex dañu mënatul. oui alors Mahmoud. donc mun nañ ni commerce bi. diggante Sénégal ba Mali gàllankoor a ndax maliens yi tamit ñun ñu ngi wax ñun wala di xalaat suñu bopp. mais ñaata heure la continue la wala ñaata heure la grève bi. grève bi. tey la woon suba am ngeen non mardi. am ngeen ma la wax xam nga tey jii. xam nga kañ lañ joxe rendez-vous réunion. Hmm. mardi à 10 heures. Hmm. pour évaluer su réponse positive amee ci diggante bi on reprend le travail mais bu amul. wallaay on continue on garde. est-ce que xam nga ni <laughs> le Sénégal. permets-moi juste de préciser que port invité invité woon nañ leen ah. <laughs> mais ñoom justement ils ont évoqué réunion wu mardi boobu disant que yéen a ngi jëm ci ay waxtaan qu'ils attendent d'y aller ak benn partie du personnel ñu dem Mali ñoo xam ne ñoo habilité woon à répondre ci invitation bi bon ñi ngi ñi ngi ñi ngi Mali lañ ma wax. ñu ñu nangul leen ko depuis également on a invité j'ai message comme appel le directeur Fulgence. commercial Fulgence Kodjo Kodjo ouais. euh, ma ma ma jéggalu ci tudd turam mais ni ma la wax du message du appel boo xam ni mujj na ko nangu répondre finalement comme ni nga ni kii doon wax sans à l'impossible nul n'est tenu moo tax nekkuñu fi gis nga pour yokkal rek. pour votre information voilà qu'on le Mali le Mali le Sénégal était premier en matière de fret malien aujourd'hui on est quatrième. tu sais qu'actuellement le Malien préfère. Hmm. décharger au niveau de Nouakchott. yóbbu këram wala Abidjan parce que. conditions yi ñu réunir au Sénégal. Mm. Charles Faye. mais loolu laa leen doon wax sànq état boo waree tibb si loolu ak loolu pour faire face ak lu ñu précédemment doo si gën parce que ta priorité mooy jël xaalis mais géopolitique bi da ngay kii la yaa ngi wax sànq Mali le premier problème boo xamante ne économique géopolitique daf si posé entre ñun ak Côte d'Ivoire c'est quand le Dakar Niger te si le Abidjan am opportunité. ne gars yi kaay leen si man Sampor Banjul est là à côté Abidjan Nouké bon ça veut dire tout simplement une question de vision économique léegi lan mooy fa problème est-ce que ton problème léegi mooy que lu ngay dund moo metti à telle enseigne foog nga dem jël ko par force si gars yi wala mooy am benn vision boo xamante ne kenn dootul am port fii sur en tout cas cinquante ans boo xamante ne dafay mën a def concurrence ak yow léegi c'est une question de vision c'est waxee trois cent soixante cinq damay jàpp mille conteneurs par jour ça fait trois cent soixante cinq mille conteneurs l'année boo defee trois cent soixante cinq mille conteneurs l'année je me trompe pas ah. yéen ñi ñu doon seetaan ba heure bi it ak réaction yi bëri na bëri na ñuy jéggalu ci ñi nga xam ne bëggoon nañ dugg téléphone jotuñu leen mën jël ndax euh, ni ñu koy waxee li duuf yëpp euh, xajul ci cin li ci nag bi li ci duuf yëpp xajul ci cin yi ñu leen di remercier di remercier Baye Niass Mame Baye Niass euh, suñu photographe ak régie bi oui. parce que ci biir kër gi. Uh-huh. dafa am ñu fiy liggéey ñoo xam ne dañu am ay quelques tiis tiis. muy ah. Ah, Youssou Baro waaw Youssou Baro boo xam ne ku yàgg dégg lu Youssou Ndour dàgg dégg Alioune Baro mu naan Alioune Baro sama waa mm, mm, mm. mu kii am na aussi Awa Gaye bi nga xam ne Gambie la jóge ñëw fi yaayam dafa dafa génn dafa génn Youssou Baro waaw am euh, waaw defe naa Awa Mbaye la woon awa waaw awa Awa Gaye defe naa waaw am na daal ñeneen mais Pierre da Silva kan la ci Awa mbay Awa mbay am na aussi Awa Mbaye dafa am am dëcc papaam waaw papaam aw mbay mhm. waaw moom tam papaam dafa génn àdduna donc vraiment mu nekk ah am mhm. mhm. Émilie son son oncle eh ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp buuba lii eh, Aliou Baro daal vraiment Aliou Baro si si si ñu ñu yar ah, si la si la bokk quoi